ana al xubaar salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina dëkkandoo yi Touba ci tuuru direction générale bu Hizbut Tarqiyyah ñoo ngi fas yéene dikk rek jottali ay cant ginnaaw bi ñu bàyyi ci ziyaar bi nga xamante ne moom lañ doon def ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin. deux mille vingt deux bii ñu am ci ak cant nag goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam jëm ci kii nga xam ne mooy sunu sëriñ di sunu yaakaari àdduna ak àllaaxira nekk ci buntu kër sëriñ Touba di wommat dongo yi di leen dimbali di leen sawarloo di leen euh, jubal ba fi ñu toll ne amatuñu jënn yitte lu dul liggéeyal sëriñ Touba te loolu mooy yéwénal seen tey te yéwénal seen ëllëg cant gi nag. ñoo ngi koy jottali itam yoonu murit gépp ak mbokki jullit yëpp di ci jiital nag njabootug seexul xaddim gi ndax ñoom xam nañ ne Hizbut Tarqiyyah seen alal la te loolee ak cant la ci nun nooy suñuy sang njabootu seex yi kenn desul boo ci jëlee itam sunu mbokki taalibe yi ànd nañ ko ñun àndin wu rafet woo xamante ne xam nañ ne digg ak dig aw dig amul suñu diggante kenn ndax tey jii boo jëloon daayira muxaddamatul xidma wala nga jël daayira euh, safinatu lamaan wala nga jël tuubaa ca kanam wala nga jël xuddaamul xaddim wala nga jël euh, euh, tey jii raw rawdu rayaxin mboole seen ñoom xam nañ ne ñu ak ñoom dañoo nekk ci ay waar yoo xam ne kenn la ñuy liggéeyal kon kenn xàmmewul sa morom ak sa bopp loolu feeñ na ci siyaar bi noog ñoom ko ànd wala suñu mbokki taalibe yoo xam ne sax jóge nañu ba Louga dikk ànd ak ñun siyaar bi kon su ma doon lim sax dafa mel ni njuumte day daal di am waaye ñooñu dama leen a tudd ñu mën a yóbbaale ñi ci des. kon nag bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal sunu borom tawféex jii mu ñu defal nu bokkook ñoom àdduna bokk ñoom alaaxira li ci toppit mooy mboolem waa Touba ak dëkkandoo yi nga xam ne ñoo wër kër Seexul Xaddim yi. na ñoom kenn ku ci ne ubbi nga sa buntu kër ubbi nga say ëtt yaatal mbooloo mi ndax mbooloo mi yaatu woon na noo xam ne bari nañu munta agsi si biir ziar bi nag dinañu beral tamit sunu cant njabootu boppam moom Cheikh Mamadou Mountakha te loolu muy waa Daaru nam suñ ci tuddee Serigne Moussa Nawel moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir kooku suñ ko tuddee rek tuddaale nañ ñëpp moom nag Serigne bi dañoo booleek moom ci wàccaay wi ñu ànd ak moom mu taxawuñu ci defal ñu ci loo xamante ne ñun mënaluñ ko woon suñu bopp ndax waxuma la dara waaye organisation bi nga xam ne daf ñu cay daf ñu cay daf ñu cay dimbali bu wér waaye tamit boole na ci defal ñu ci taw feex goo xamante ne xale yi yëg nañ ko ndax sëriñ bi ñoom xale yi jàkkaarloo nañoo ak moom moom euh, soxna yi tamit gis nañ ko jàkkaarloo nañ ko moom te loolu lépp defee na ko noo xamante ne ab coono sax amu ci ci wàllu sëriñ bi loolu nag. ak xereñam la ak yéenam juré joo xam ne am na ko ci taalibe yi ñu ngi koy sant bu wér di ñaan suñu borom fayal ko boppam ci toolu sëñ Tuubaa loo xam ne kawe na njortam di sant itam nag meeru dëkk bi sëñ Abdou Ka di sant nag euh, ñi mu seqal liggéey bi ànd ko ñoom waaye nag tamit sous-préfet ak service de déconcentré de l'État moom dafa organiser teg ci yoon ba nga xam ne mboolem service yi nga xam ne dañu liggéey ci wàllu sécurité ñii di liggéey ci wàllu jàppandal wàllum paj ñii nga xam ne dañu liggéey ci wàllu ndox mi wala euh, setal dëkk bi euh, ñii liggéey tamit ci yeneen anam sax bàyyiwul kenn ba ci communication loolu nag euh, ñu ngi koy sant moom di sant tamit mbooleem chef de service yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi ziar bi tam dafa mel ni cant gi faw dina beral ak cant membre Hizbut Tarqiyyah yépp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ndax laxasaayu bi ak takku gi ak façon gi ak positif bi moom dafa mel ni ndimbalal yàlla la loo xamante ne kenn ku ci ne boo xoolee sa moroom gis ko ci moom waaye nag nañu xam ne euh, sëriñ bi defal nañu lu ñu jomb sëriñ bi nag dafa waxoon ne ku ma defal loo mën dinaa la defal loo mënul waaye ku ma defal loo mënul dinaa la defal lu la jomb ñun dafa mel ni ñun defaguñu lu ñu mën sax sëriñ bi defal lu ñu jomb kon am nañu liggéey liggéey bi nag mooy waratuñoo tàggoog laxasaay nañ xam ne euh, as gor suñu teral dafa am ñaari ngànnaay yoo xam ne mënta tàggook moom muy jom ak ngor te yii yaar yëpp de nit mën naa bañ a am tawféex yi doonu jullit sax dugg ci lislaam te am ko bu boobaa foo mën a ne la ngay def dangay ne ca kanam waaye nag doon jullit te amoo yi yaar mënta ne ndax de mbuusum ngor moo mën a def lislaam jomit moo lay li ci lislaam mooy ngànnaay yi nga xam moom ngay jëfandikoo yii nag kon dama bëgg ñu xam ne suñ ko jëfandikoo liggéeyal sëñ Tuubaa dootuñu ko dendaleeg dara te it du ñu attandiku du ñu taxaw du ñu gestu du ñu dëpp kenn rek la ñuy xool muy seexul xaddim mi nga xam ne defal nañu lu ñu jomb te defalaguñu ko lu ñu mën ndax lii ñu def mutul sax boo ko doon atte ci pourcentage un pour cent wu capacité yi nga xam ne moo nekk ci biir wala xad kararam naa bani aadama xam nañu loolu kon nañ jaajuwaat nañ góor góorlu nañu xam ne lépp loo xamante ne sunu borom faggu na ko doomu aadama mën koo def ñun nañ nañ nañ jaaju rek Serigne Touba moo ñuy gàttandu dimbali ñu ba ñu mën koo am ndax tanaasaul mawtama moom sañ nga ko rek ci saaba yi ñoom tuur deret la woon ñu mu mel ni kenn nanguwut dellu gannaaw xare bi bu taxawee nga xool fu mu gën a méttee nga dem fa loolu mooy tanaasaul mawtama waaye la tax xare bi ñu gañe ko mooy am ma dafa rabbu la naam bi bi di am laa ki nizaam kon sunu borom moo lay gàttandu kon gàttandu googu ñun am nañ ko ci ziar bi te xam nañu ne sax ñun defuñu luñ mën mën nañoo weesu foofu lii moo tax kon ma bëgg ñu xam ne jàngat bi war a jóge ci ziar bi mooy màggal gi jege na Hizbut Tarqiyyah nag li ma ciy tëjee mooy na ubbi buntam yëpp nañ ko daan defee nag waaw suñu kilifa gi Sëñ Aatu daan na wax ne aw dikk amul ci diggante Hizbut Tarqiyyah ak menn mbooloo loolu nag ñu dañoo tollu ci di ko gën a liggéey ñëpp di ko xam loolu suñ ko gën a liggéey gën koo taxawal dinañ noppal suñu kilifa gii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne euh, yaa rabbi halil muridina ma fi xesningal xasini wa chamlañ ma dinañ ko gën a dund suñu diggante di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne màggal gi moom la ca sëñ Saliou waxoon mooy soññe bi fu fi ñaar dendee kii di ko fonk kii di ko bañ a fonk ka koy fonk du ñàkk di gis lu mu tiimee ka ko dul fonk ba faw nun nag suñu wàccaay màggal nañ xam ne tabaski yi moom buy mat tam xarit ji am na liggéey buñ ci ànd ak Seex mun taxa bu liggéey boobu day sës màggal waaye màggal it day sës gàmmu nañu xam ne kon li gën a wóor mooy ñu xam ne sunu sunu sunu xol sunu xel sunu yéene sunu yaakaar suñu kóolute lépp sëñ Tuubaa ko moom nañ ko ko jébbal te ànd ak xol bu sedd dinañu gàttandu dinañ defal lu ñu mën dinañ defal lu ñu mënul dinañu yéwénal suñ tey dinañ yéwénal suñu ëllëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu والكل منهم سجان يقي لقاء يفلان له بما يظن به وقاتلوا من قد هم شفيع السفهاء بخير وكمين